طبيبي قريب هل سقامي تسمع di nga def bàyyi nga xool fan yi des nga xam nu muy may xaalis loolu macha allah. Hmm. kooku tamit daal dinaa dox loolu ci biir ñii di hmm. ah. pour ñu ñëw ci surtout Yacine. ko xam Yacine xaw nga njëriñam. Hmm. loolu dugg lu mu xat xat xat bu la neexee nga ñaan yàlla ci Yacine yàlla dina la ko defal ci kàttan. ku mën a bind nag bind boo nee ne boo mën a bind nga di ko jàng. Hmm. Eh, boo ñëwee bind yaasin mu bind boo egg da taxaw nga bind wala yu baddi lanum ci suuf nu. Hmm. xaw mu am nan foofu nga yem. am hmm. yu baddi lanum dina walbati. min baddi ginnaaw xaw fi mu amee njaas am na bu mu am bégti loolu lay firi. mu bind bu ne boo ceegee loolu ngay bind téeméeri yoon. nga def ko saafara. njaqari bi tax nga def ko soo yël dina ko faj wala ngay jàng saari booy gi nga taxaw lim loolu sa loxo yow waaye bi nga si ko téeméeri yoon wala yu min ban xaw bi ma am na téeméeri ko continué saari wala boo ñëwee ba ci ba mu jeex nga delliwaat yaasi mu mbir mu ci ko da koy daw ci desi mu nga taxaw si ka mm-hmm. kon ñaari eggu jàng yaasin spécial nag bu taxañ ko lu mu rëy rëy ñetti fan ñeentu ci yàgg ci ci wuññiwul njàqare woowu moo nga am ci mukk bégti ci yaasin loolu lay dox macha allah am nañu yaasin ay euh, am miim def naa fukk ñaar hmm. ay jeexi miim yaasin xuraani hakim hmm. la sar mustal ay jeexi yu miim miima yooyu ngay jël fukk ñaar ci biir saar hmm. ay bu nag boo xamee la mu taxawee nga di waaye boo ko xamul nga seet sa soxla yow mu doon nga dugal ko ci miir yooyee su ko di ko sangoo bu soobee yàlla loolu yàlla dina la ko defal ni ko bëgg ci kattan damay ne toujours nag naan dañuy ñaan yàlla mooy nangu waaye bu dee si jàag sa aajo faju waxul dëgg ndax jaa jàag aajo faju boo sama aajo faju woon du ngeen ñëw fi jëm fi kon tey yaasin ku ko mën a bind dëpp ko dafa jafe nag. Mhm. fin ba ngay commencé kooku day tax ku lay xatal léegi mu abal la jar naa xam. Mhm. li ci borom bi fa tedd yu nit ñu rek bëgg nga fa jëlee rek wutal aliyaasi ay boo bind rek waxal li nga bëgg loolu sax waxal li nga bëgg rek mu lu ñu gaañ yàlla kii may sonal daal bëgg naa nga tàqale waa moom. bu ko ñaanal lu bon dara taqali maa ngi ko. Ah non saa yu nii la demee boo xëy naa suba bi seytaane bismillaahi rahmaani rahiim ci feewu nga tàmbalee na. boo nee tur dafa cee xam nga waxal li nga bëgg. Hmm. nga ne wa illee shay'in kullu malakuutu bi yadihi la ci fa subhaana taxawal. tudd nga seen lu taxawal wax li nga bëgg ba saar bi jeex ba ci yaasin ba ñaan saar bi ci moom. te muy dëgg ci yow kenn li mu def dëgg ci moom may ko fan ñu néew rek léegi ñu ne sooy tukki na kon rafet na sooy tukki na nekkatu fi tukki na du ma tudd ca du ma ko tudd tukki na wala toxu na ma nga dëkk sàngam léegi baax na wala nga jàng yaasin ba ci ba ci salaamun xawlu min rabbin rahiim boo ko adressé moo ngi lay jox mille cinq cent xaw ma lan mais daal boo fa ñëwoon seize fois nga ko jàng ndax arab yi li arab yi seize seize arab la maanaam arab yi. Hmm. siin laal bi boo ko yëg seize la lay jox nga taxaw si kër ko seize fois soo koy gën a saar bi ñaanal li nga bëgg. yaasin moom bu ñu ci duggoon tey du du du ndax moom lépp njëriñ la. Hmm. lépp njëriñ la. soo ko bindee bu mu jeex mu bindee. miim gu ne nga def si yow sa tur li nga bëgg. Hmm. boo dul takk dee ko sago doomu ndey ji mul ci noonu la mel doomu ndey lañu ndax mul ci am na ñeenti rahmaan yaasin am na ñeenti rahmaan mul ci am na ñetti allahu yaasin am na ñetti allahu mais mu bin boo egg ci yaa ci ci mul ki laa wax de la nga bëgg yow def ko ci miim gi même boo bëggoon soxna maa bëgg diw nekk sama soxna def ko ci miim gi moo tax bul bëgg koo xam ne day sonal ndax day day ñëw ci kàttanu yàlla borom bi dama fee bëgg a nekk ci nangam def ko ci miim bi donc bu la gën ko ndax numéro moo gën a gaaw a dem hmm. yii numéro portable yi numéro bi mooy dem hmm. nga adat ko man yàlla ma ñan dama bëggoon sa nga defal ma nangam nangam ci nangam loolu ngay adat si boo nga dugg ci miim ci miim mulki yi da ci gën na nga def ko ndomb ñetti bakkan ñetti bopp benn wu da ngay tëj sëriñ si yëpp loolu la am te duñ ko wax nit ñi benn bi da tëj ku la jóg tee rek am problème su safara ne safar pompier yi ñoo war a am loolu tëj ñaar yi dugal génnal ñi lii lakk te yow doo lakk ñetti wuti ñetti jëm police boo demee moo lay accueillir boo demee moo lay jox paas ci mujj gi loolu lay dox. kon nag mu ngi jëru seen ndax dafa bëri ay affaire ki ma jàngal alxuraan wax na ma ne bu amee nit ku faatu taxul ci boobu nga jàng yaasin taxul ci tànk yi nga jàng mulki siiw na ma jàngal moom bu ñëw ko ba Dakar bu soobee yàlla moom ci nelaw lay déglu dañ koy yee ni ko ñu gëm naa ko nag ndax ni ko dañoo bari te moom moom ma ko wax ca boobu ñëw ko ba bi jawar soxna sa gaañoo ween góore ci guddi lañ ci bopp jàngal ma yaasi ana jaxat ba bi taxaw taxaw ci kaw ngeen koy jàng na waaye macha allah sant lool. yaasin loolu lay dox ak mujj. loolu ci beneen saar. lu ci toppat dem. waaj tool yi. kan. ndax da ji. su jàllee mbay day ñëw. su jàllee dama ñëw jaag dugub ji dugub ji jaag. waaw su ma jàllee ñëw. su jàllee taal day ñëw. bu jàllee eh, jong day ñëw. sëy sax a jiitu sëy day ñëw jong ñëw. sëy bi ñoo moo yokk xeer wi jong mooy def lislaam. taal tax biir yi fees quatre vingt fois par par mois taal trois fois par jour taal añ taal day nit quatre vingt fois par jour par mois. taal loolu lay dox. njaay nag moo yor yi fii. jënd ak yi ñoo baax na waaye yii ñoom ñooy ñooy ñooy moteur oto bi. Hmm. waaye bàkku jàpp te boobu ñu la. doo dem kii islam bu ñëwul lu jóg lu rab islam. <laughs> waaw du rafet est-ce que. Hmm, ñetti saar yi amul kaaf. loo ci bëgg rek. mën nga cee ñaan ci yàlla ci ñetti saar yooyu. Hmm. booy tëdd guddi ba aj say tànk. Hmm. te tëdd goo xa aj ki ne yaa ngay tëdd jàngal ñetti saar yooyu. wala mu jeex lii laatu. nga tëdd ak moom. soo yee ba toog nii jàngaat ko soo ko wàcc parce guddi nga ko a hmm. jàng ko dem. Hmm. xanaa ku rep. moo lay a kàr. ñu saa loolu lay am ñoo xam nag jar naa xam jar naa bañ a ndax. barab booy xëccoo nit gaaw na ci mu jox la ko. da hmm. nga wut nga bind si ñetti saar yooyu kayit nga wut jëru mbët nga bind yow sa tur ca der wa man Cheikh man yaad ma ñang ibnu sa yaay loolu ngay bind day jigéen man man Xadi Njaay bintu sa yaay loolu ngay bind ca der wa laxase ko kayit suuf ca barab moom bu ko policiers yi xamoon ñooy gagné lépp kooku suul ñu taal sa loxo lañ koy boo ko bindee noonu. amul waaye am na foo xam ne bu la neexee dugal fa keef. bu ne wala yéen la fi xusin xam nga illa la siin am na bu neex nga ne innaka. ndax illa. day moo boo xam ne day am ñuy rob. loolu kulli mooy romance mais indi dafa am ñuy doon. dara ñi nga xam ne indi waxal indaka. dafa keew ñëpp perte ñu indaka. ni ki kon kon am na ko bëgg mu nangam nangam noonu nga ci foofu gu fiy dugal. de lii laa bi xool yi laa bi si laay wasee yam doo làbb bul bind làbb ndax borom bi waxal indaka loolu yu bëri ñu koy dégg. ndax dafa am xulaan bi fàllax min si ne maa xam ne si xëy sa wàq ba wàq ba jooju. képp ko fay dem du buy ba képp ko fay dem sa wax ba bu mu bal fa képp rek hmm day dox lool ak yeneen ak yeneen way nan wax lool rek ndax yi ngeen seen bu ñu jité teg man mi yaa ngi déglu man ngi déglu kay sànq sank dafa am lo xamante xamna bala ñoo sori comme ñu ñew ci te nga junj ko sa biir wax muy mbirum jàmm parce que dama naan jamono yi ñuy toll nii lu ay gàtt gàtt xel lu ay gàtt gàtt gis-gis xam ne réew mi fi mu jëm baaxul baaxul dëgg yàlla nag ñun ñëpp bokk nekk ci gaal gi mbaa ci oto bi su mbëkkoo it ma kenn mucc ci euh, moo tax saa su ne dama naan képp kuñ mën a dalal rek na joxe loo xamante ni képp ku koy dégg bu la ko sunu borom mën loo wee nga def ko moo xam sarax la moo xam lu ñuy werd la moo xam mais loo xam daal insha allah rabbi buñ ko defee du jëm ci yow mi koy def yow kese mais day jëmaale ci sénégal gi yépp ba yàlla def fi jàmm ba li ñuy ragal nii te di ko séntu ñun ñëpp te neexuñu suñu borom dimbali ba insha allah rabbi mu sedd guy ni galaas jàmm bi ñu xamoon démb barki démb continuer di wéy di am waaw loolu bëggoon nañ lool en tout cas de man képp ku ma dajal bépp kilifa bu ma gis danaa la ko wax. Mhm. loo ma ci jox tegtal man danaa ko def. Mhm. te it keneen ku ma xam it danaa ko wax mu def ko ko tey dinaa ko partagé incha allahu rabi ci ñëpp def ko si jàmm ak salaam. loolu boo xam ne dañuy am solo. Mhm. muy juróom benn saa yi ñu nekk ci te amul mimara. amul mimara. amul mimara. mun naa wala xasida ca la bokk suñu jiw nañ wala xasida bu mu jeex amul mimu mbig njaan amul maanaam mimu bis bi waaw mimara mimara mhm. wala xasida moo ko amul mim bu eh, mhm. juróom benn saar daal bind naa ko mais dafa xamatul fu mu ko teg dama def ko kon ma génne ko mhm. yooyu ngay fex nga bind ko def ko saafara nga wut reenu garab gu ñuy wax bu mu bu mu bu gën a siiw ci garab gi mooy pokoy pokoy. pokoy pokoy. ñu gën koo xam ne bëngu. Hmm. bëngu. poko pokoy la ko séeréer si wax reen ko. jaay ko ñu xam nañu ko. Hmm. def naa ñett sakkee ñu ko jaay téeméer ci ceeb. Hmm. moom nga ci nga baxal ko bu mu bax nga sangoo ko. ak sa famille. Mm-hmm. lu ñëw dalay teggi. Mm-hmm. lu ñëw teggi soo ko mënul nag xam ne bëgg réew mi jot ci. Mm-hmm. da ngay jàng saar yooya. saar jeex rek nga taxaw ndax lu wala asli mu ne ñëpp dañuy perte. illa jooju ngay taxaw wax fa. ndare ñi nga xam ne nangam nangam réew mi daal jàmm lañ ci bëgg ku fi ne indi ay. yal na la topp ku fi ñu bëgg jàmm yal yal na la topp saar wooye gën a taxawal nga wax loolu juróomi saar juróomi saar mi mar su ma gisoon danaa dem wax saar bu ne mu ne waaye hmm. dañoo bari bu def maa réer ni kon ma wax la ko hmm. bind naa ko ne bettu noonu yëpp lay jiina pang waaye dafa bett boo xam waa ma hmm. la bokk ndax seen ñoom seen yon du yem ci benn boo gisee tamit après man heure ba ma waxee ko incha allah. kooku daal kooku bind di ko sangoo yàgg sa njaboot. waaw wala ko yéen yéen ok. wala wala amul amul mi mara. Mhm. surtout kaw sara amu ko. Mhm. Issa Dia amu ko. Mhm. Tabalida amu ko. Balla Sall ko amu ko muy juróom benn saa yoo xam ne amul mi mara. yooyu bind. wax ne yoonu bambu bambu amuñu ko amuñu ko pokoy. pokoy. da koy baxal nag boo koy toog da koy boole ma baxal ko. Mhm. léegi dama dégg sax suñu waa ji eh, ci Saalum Dior bi ko fu mu ko tey rek tu baax ba dee. waaw waaw koy ci ah Habib Seck Habib Seck. Mhm. bëgg na ko. Mhm. bëgg na ko lool léegi nga. daal di dee ba xàqataay nii ma am ñoo duma ko wax. waaye bi ma la wax boo ko boolee yii nga bind ko nii nga baxal ko. ak leen ba sangoo ko. attention eh? de jàmm dina am ci ñun bari ci naa te yow di nga fi yàgg loolu. incha ndax amul amul loolu. nga ñëw ci saar xam ne. Mhm. neuf saar yoo xam ne moom amul amul tur yàlla. neuf saar yu amul tur yàlla. wul mursalaat yi moo nekk ci kaw. fan moo nekk ci kaw nga amul tur yàlla. amul tur yàlla. Mhm. wul mursalaat fukk أبصر وصنع وتاريخي لا أقصي بأس الولد الخانيات عليكم التكاسل والحسن أرأيت كل ذلك من تمر يدا tur yàlla amu ca lu yàlla nekkul nag moytu ko kii na noonu lay def baaxul jamono ji moo toll foo xam ne foog nga wut foog nga sa bopp kii da koy bind bu mu jeex nii loolu tax ci taw tax ci garab yi comme lañu comme lëkkat nii po pokkum lëg. pokkum lëg. pokkum lëg lay mbaam boo xam ne mbaam maa ngi dund déew. Hmm. comprendre dégg naa ànd ñu naan neefere kenn ko di ci ngi hmm. dañ koy sangoo di ko naan. Hmm. neefere bi ci boo xotti si bopp bi rek laa am. ku ko seexu. sangoo ñëw bu paree sax dañ lay tëj. bu mm-hmm. ko ci ndox mi rek. Mm-hmm. bu mu ko jox ko xëy na bu mu raag nga sangoo ko. Mm-hmm. day dégager tout comme xam bu ñu ma muy cabinet day day génn. loolu lay génne li sa yaram sànni ci àll. loolu ngay def ko boole ko koraay def ko ko bu bu nga ko allah muy muy fukki saar yi amul tur muy wal أبو صوت والله وسمعي وتاريخي لا اقسم بهذا ولدي الخالد عليكم التكاثر والحسن أرأيت عليك الكافر التوليد أول أول أول تريال أول أول جامعين كخولك أمك بولا نفر مبابي أكوراي أكوراي أكبكم لك أكبكم لك أم نفر مبابي جاك سكا سافر بي بولا بسافر كيد بيك آه، كيد بيك كيد بيك دبوك دبوك بمو دبوك شوراي دبوك شوراي فو خين سخ بابا دني دكاس mu ñëw ci ñetti saa yu kii muy bii mooy a yi collège yi ak Fadax ñu amul kii moom moo nekk ñu ñetti saa yu amul kii kooku waxoon naa ci. Mm-hmm. saa wu ne dafa am ministère ne ci biiram. Mm-hmm. saa wu ne am na ku ko fa toogal. Mm-hmm. gis nga président de la nekk nag am am ngay député am ngay nangam wala am chef de quartier yëpp ñu ci biir saabu ne am na lu cay dox ci loolu. Eh, juróom-ñaari fukki saa rek juróom yi tàmbalee waaw. moom moo taxaw julli juróom julli juróom 17 mm-hmm. moo tax jàpp wa saafaati ku wéy la di kull 17 kooku moom saar yooyu boo ko mënee bind dafa métti rek yaa ko bindal sa bopp ba yàqu. bi ne bu mu jeex kooku ci jàngoro lay dox nga bind bàqara ba naas aay bu njëkk ak bi mujj ay boole bii ma la wax nii hôpital dox na wax nañu wax hôpital ba sonn ba sonn ba sonn ba sonn na ñëw ci yow bu ko facturé dara mu ne ko man damay ñaan faju damay ñaan waaye li ñuy ñaan bu ko yàlla nangoo jox ma nangam d'accord da nga ne ko wacc fi nangam te su wérul rek la bind moom baaxul ndax mën na ci yëgoo ko ci naan rek baqara ba naas aaya mu ne nga jël premier aaya bi ak dernier bi jël xëy alif laam miim ay bu mujj alif miim ay bu mujj asmaa wa taarixi ay bu amul wooyu dan yooyu ngay boole ay bu jëkk bu mujj loolu lay dox mm-hmm. bu fekkee ku ne ca ba ñu jëlee la ko ci ci erreur rek jëlaata li ma la wax bàqara baat ba mujj ca jeexlu ba max wala mu mujj mm-hmm. ay bu mujj rek bi ñu yi mujj jël ci saar nga am 114 bal 114 bal ku ñu teel nga gagné nga di ko songo dina lay waat waram ci lay taxaw ndax jot allah mais jikki ñu dem ci beneen boor waxi gi allah mu mel amna solo lool mais comme ni ma koy waxee station dafa nekk question boo xam day lu bari ñun muy nit des fois mu la li ci ëpp nag mooy ñi nekk bitim réew ni la yaakaar moo ñu fi indi waaye yaakaar googu yamul si ñun kese mais nday dafa yaakaar si ñun bàyyi yaakaar si ñun rakk mag mhm. jarbaat ci gàttal daal famille bu lëmb mhm. wekk seen yaakaar ginnaaw yàlla ci ñoom mhm. euh, mën nañoo dépenser sax seen xaalis dem ba egg waaye mel ni buntu daa gën a tëju foofu lu ñu laal du baax fu ñu tàmbalee liggéey ba foog ñoo ca nekk rek soo moytul ci jafe-jafe la ñuy mujj même personne yooyu des fois tamit ñu wax la ni def nañ fi tant d'années maanaam yàgg nañ fi mm. te nit mujj naa ñëw am fi kayit ba mën fee am liggéey bu baax waaye ñoom pour ñu am kayit sax problème la daanaka dañuy liggéey ci liñ tuddee marché noir maanaam liggéey boo xamante ni c'est pas réglementé doo am yenn privilège doo am yenn avantage donc ki nga xamante ni bàyyi na way jur bàyyi ñëpp dem ba bitim rew nekk fa deug yalla ya fusul nak lepp lu mun mën mang koy def waye mu melni buntu bunt teju koku tay dama nan ben diagnostic nga ko wara defal tay boko don ko diko diagnostiqueel di ko joxe ay tektal ki nga xamni sunu borom dina ko dimbali avant tout moy lamuy sakku ci comme lu melni ay papier mu jot ko waye bu amé papier ba paré sunu borom dimbali ko mu am beurep manam place bu baax bu muy liggéey waye tamit bu liggéey ba pare tamit la nit ñi wax des fois tamu jaaxal mo muy loxo bu bënn nan lañuy def ban ciment lañuy jël fat loxo bi ba bu ko defé loxo bi dootul bëtt. ma sha allah ko insha Allah bu gën nañ tamit nga ñëw ci. macha ci question bu am solo. Hmm. ndax nek ci réewu hmm loi ya fay dox. Hmm. foog nga ko nga ànd ci sinon rek doo doxal. su ma fi lu këy. Hmm. Euh, gaa yi ko rek so mais mi jafewul. Mm-hmm. surtout kaa danaa ko wax lu yàgg. Mm-hmm. ñetti baat ak wa tax si mu ay xaasan wu mu ruqoodul. surtout kaa mu ay xaasan ko mm-hmm. ne bitim réew bind ko rek ci këyit yow. nga filmé ko ne jox ko mu gis ko moom na fexe ba génne ko mu ne ko génne ci maanaam boo ko filmé ba yokk ko mu ñëw ci portable. waaw na ko na dem ci ordinateur ñu génneel ko papier bi. soixante-dix fois la koy la koy la koy lañ koy bind. Mhm. boobu nawet da nga koy di ko xaatim yónni ko xaatim. Mhm. mu sang mu tàngal ko di ci xolam sangoo ko dem di wuti papier te joxuñu ko. Mhm. ko dàq. est que. war taa si waaye xaalis mu mu xuur bi ca suutu kafe. suutu kafe. waaw. bu la neexee nga àddal ko def ko xaatim. photocopie ko nii ñoom ci téléphone bi envoyé ko ko ñu kayit wi fexeel ba génne ko xooj ko ci ndox jàmba ko yow ci xolam bu mu sax tàng mu tàng sang ko xëy dem ambassade